mi ngo ñun daal la ñu mënul dégg mooy Pape Alé Niang directeur général bu RTS ba mu fi ñëwee léegi daanaka amu fi ñetti weer ñaari weer ak tuuti lay am mais boobu ba léegi ay décision la yu muy jël yoo xam ne kenn xamul décision lan la mel ni ko ñëw pour saboter RTS pour yàq kër yi nga xam ne moom mooy RTS yàq weesuwul ay per de famille huit cent neuf cent pères de famille yoo xam ne depuis Mathusalem ñu ngi recevoir avance de tabaski cent mille francs li nga njëkk def mooy dindi cent mille francs yooyu yàq tabaski agent RTS yëpp kenn waxul dara ndax ñëpp xam nañu avance tabaski kenn mayu ko kenn danga koy fay mu ñëw dindi ko kenn waxul dara agent RTS yi teguñu ci baat pare na dem na ci ñi nga xam ne ñooy CDD yi borom contrat à durée déterminée yi nee na da koy arrêté ñooy def nañu deux ans deux ans contrat à durée déterminée war a dugg CDI nee na ñooñu dàq na leen pareewul foofu dem na ci prestataire yi ñi nga xam ne ay trois cent mille deux cent cinquante mille nga fay weer léegi nee na ñooñu cent mille franc la ñoom moo mooy li nga xam ne moom mooy bonne gouvernance bonne gouvernance mooy couper téléphone yi nga xam ne moom la nit ñi di liggéey moom la liggéey agent yi nga xam ne ñoom ñoo yor téléphone di coordonné ay émission ci programme yooyu yëpp couper na ko nangu na oto ay chef de service nee na ñooñu oto yi doyewuñ ko dara day jël oto yi jël ko yóbbu ko ci yeneen parc automobile xam nga foofu liggéey leneen amul benn discussion amul benn échange nit ñi nee na moom ni mu ko gisee la koy defee noonu lañ ko sant noonu la koy doxale yamul foofu mu dem foo yi nga xam ne mois de juin at mu jot dañ koy fay depuis 1900 xëy na moom boobu sax judduwul loolu RTS mu koy fay fonds commun yooyu ñëpp xam service administration yëpp genn wàll genn wàll yëpp am nañu ay fonds de commun ay fonds commun mu coupé fonds commun yi nee na dootu ko te treizième mois itam jàpp na ni moom loolu légalul RTS dootu ko fay pareewu loolu dem na ci accord d' entreprise accord d' bu ñu signé ëpp na ñetti weer nit ñi di fayu sur la base de cet accord d' entreprise Pambaay la ñaan nii nag dem changé lépp luy jëm ci bulletin de salaire yi foofu ci direction des ressources humaines suñ ko changé ba pare à partir du cinq mois prochain ñi ngi rétrogradé agent RTS yi salaire ru deux mille cinq la dellu ba foofu ñu commencé leen fayaat salaire deux mille cinq deux mille cinq ba deux mille nga ne ngi yor sa juróomi million yoo xam ne yow ba nga ñëwee rek ne la juróomi million ngay fay waxoo ne million wala cinq cent mille au contraire yaa ngi am ay privilège yor say oto yor say yeneen privilège sa ay téléphone ak yeneen avantage yoo xam ne yaa ngi ko yore tey ci mooy ci bëgg sànq ay père de famille loolu duñ ko nangu moo tax ci talaata ji dañuy tenir ab ñu wane ne kontaan nañu d'accord ñu ak Pape Alé Niang ci loolu nga xam ne noonu la bëgg doxalee kër gi sans l'avis des gens boo boolewu ci benn nit boolewu ci kenn nee na moom loolu ko ay kilifa am sant loolu lay def mais ñun tamit dana am ay kilifa am ay organisation sénégal am ay kuréel yi nga xam ne dañuy taxaw pour protéger RTS RTS këru nation bi la këru réew mi la du këru Pape Alé Niang du këru kenn thank you